Sëriñ Saliou Mbacké nee na Sëriñ Tuubaa moo ne ko maay maay yow yaay man Sëriñ Saliou Mbacké wëlbatiku ne Cheikh Béthio mooy man maay yow ne sa màggal gii def naa ko mu ne sama màggal Sëriñ Saliou Mbacké loolu la wax dégg nga ñoom seen biir nag képp koo xam te ni xamut na si maanu diggante soxna ayda ak euh, diggante euh, Sëriñ Saliou Gueule Tapée képp koo xam te ni maanaam xamu rek na si maanu mbiru Sëriñ Tuubaa moo demee noonu soxna Aida nag gis naa ñi ngi koy dingat ñi ngi koy kalaas soxna Aida ñi koy dingat ñëpp moo man seen baay man seen yaay ñi koy dingat nii euh, am na ñeneen ñoo xam duñ cantaakoon ñoo xam ne dañuy nekk si muri gi nii rek di ko di di ko wax lu ne dañoo xamut soxna Aida amul morom soxna Aida màggal gi gannaaw yàlla suñu borom moo si mën soxna Aida dañu wax ne raarib adawiya jigéen bu nekkoon isiptale ku bëroon xam-xam da daan dox sa jaww ji la raar adawiya li muy yéeme yéeme yéeme seenu pëndu soxna Aida Diallo soxna Aida Diallo wëlli yun xaqan la gis nga nit neexut a topp Sëñ Tuubaa képp ku su laalee bant rek nit ñi di ko nit ñi topp ko soxna Aida lim am nii du caaxaan Sëñ Tuubaa ko ko defal ku ko bëgg da ngay sonn ku ko bëgg ku ko ko bëgg rek am jàmm ku ko bañee da ngay sonn parce que garab goo xamante ni kenn mënu ko di dindi képp ku munti dindi jant bii mënu fee jëlee soxna Aida Diallo jant bi képp ko fi mën a képp ku munti képp ku munti jëlee Soxna Aida mënu ko fi jëlee dañuy sonn rek moo man si màggal gi booy boo ñi nga xamante ni ñoo koy dingat wala ñu wax nag su du noonu nañ ko may jàmm Soxna Aida jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la su demee ngaa bu gis naka mi na fa def wëllu yun xàqan la parce que ñi ko topp ñii ay aalim lañ ñii ay xaakim lañ ñii ay xaafis lañ ñi ko topp ñii dañoo jàng ba ne ar ñi ko topp amul kenn ku si ne ay jaaxil ñii ay professionnel la ñii ay colonel ñii ay général lañ képp ku si topp rek ñi ko topp ñëpp rek ay ni ay ñu jàng ba ne ar la moom suñ Saliou moo ko fal suñ becc moo ne mooy man maay moom kon mën naa jiite mboola bi mu yore neex naqar yi am na ko am na ñoo xam te ne ay sët lañ ne ay doomi soxna waaye mbooloo mi amuñu ko son ay da wël ñu yàlla xàqan la raad adawi ak seenul pënd son ay da jàlloo ñii ngay séen ñuy coow di jaay daraja séenuñu pënd son ay da jàlloo